dañ koy tàmbaleek Jurbel élément yu commissariat central ànd ak sapeur pompier nag ñoom ñoo sulli ni ki démb ab néew xale bu jigéen bu am fukki at ak ñett dañ ko suuloon talaata bi ñu weesu ca sëgaya ca kër Cheikh ñu gën ko xamee barsax li ko nag waral ñu daal di ko sulli mooy xale bu jigéen bañ ko fay suul amul certificat de genre de mort naka noonu amul benn kayit daal bu waneen war nañ ko war nañ ko suul dañ ci ànd ak leeral ak Alimatu xale bu jigéen bi ñu denc mi ngi dëkk ca village bu nguy mardi bi ñu génn ci taw bu métti bi nga xamante ne wàcc na fii ci njaareem magu papaay xale bu jigéen bi génn àdduna daal di dem rek ca cimetière yu barsàq ya nekk ca kër cheikh ngir denc ko bu ñu sukkandikoo ci waa police yaayu xale bu jigéen bi génn àdduna te rek ay atam toll ci fukki at ak ñett moo rekk wax mbir mi procureur gannaaw ba mu amee jiixi jaaxa ci denc gi nga xamante ne magu jëkkëram amal na ko ko ci jeudi bi waa commissariat central bu police ànd ak waa sapeur pompier dem rek sulli ji néewub xale bu jigéen bi ci njàppandalu ay doomi aadama gannaaw ba nga xamante ni waaye ji nga xamante ni moo demoon denc ko dafa lànk ne du ko sulli ba ñu ko dégloo ca police moom nag daal dina xamle ne jot naa woo rakkam ji nga xamante ni moo jur xale bu jigéen bi nga xam ne bi muy génn àdduna ma ngi ko fekkoon ca bërëbu liggéeyukaayam gannaaw nga xamante ni moo nekk mag mu dem denc certificat de genre de mort naka noonu certificat d'inhumation l'enquête bi ubbi nañ ko papaay xale bu jigéen bi yaay yi ak ka dawaloon oto ba déglu nañu leen waa sapeur pompier ñoom yóbbu nañ néewub xale bu jigéen bi foofee ci hôpital bu Diourbel ngir ñu amal autopsie bi